pour session bi du ñoo jël li ñu tuddee l'équité territoriale parce que ku nekk gis na li nga xam ne mooy ay inégalité maanaam région yëpp yemuñu yemuñu ci seen wàllu ni nga xam ne noonu lañu bindoo loolu nature bi moo ko indi ak ni nga xam ne noonu la ñu placé woo ci réew mi mais yemuñu tamit ci li nga xam ni nguur nguur gi moo ko fa liggéey walla ay ONG ñoo ko fa liggéey wala ay acteurs ñoo jóg di yëngul seen bopp ba liggéey ko fa ñëpp yemuñu acteurs yi ñu bari amna ci région yi ñu concentré wu amna ci ay région yo nga xamné ne li leen yàlla may ci walu potentialité bo jëmee jëlé tay walu agriculture xeyna amuñu ko mais ñeneen xeyna mënon mënoon nañu koo am bu fekkonté ni fexé nañu ba xëcceel leen ndox ma mu ñëw té yoy yëpp dafa nekk ci ay initiative bu président parce que Preferlo bi jëlee ndox mi ci fleuve bi xëcc ko ba mu dugg ci ay région yo nga xamné amuñu woon ndox loolu lépp dafa bok ci li nga xamné mom moy indi manam inégalité yi nga xamné ñom ñoo am suñu gisee li nga xam ne moom la def ci wàllu piment def ko ci wàllu PUDC def ko ci wàllu Promoville ak yeneen projet yi nga xam ni yëpp pour lutter contre euh, inégalité yooyu la soo jëlee tey les bourses familiales boo jëlee la couverture maladie universelle ak yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne moom mooy dugg ci sunu thème bi nga xam ni moom la ñu jël pour l'équité territoriale mais nag du ñuy ànd ak ay ay ay ay ay naataango yoo nga xam ni ñu ngi nekk sur le terrain parce que au conseil bi ku maire bari na conseillers municipaux am nañu ci de sorte que nous xam les problèmes sur le terrain nous sont nekk fii bu ko choses bu ñu nous fekk ñi sur le terrain nous waxtaan ak ñoom nous on ak fait defe nous bu ñu échanger rek dinañu on a enrichir parce que nous avons xam-xam Samba Samba moo lay Samba dinañu mën a gën a enrichir abi yi nga xam ne duñu ko bëgg a jox chef de l'État pour que li muy xam li ñu koy indil aussi nekk loo nga xam ne duñu ko gis sur le terrain ñu ko waxtaane ak ña nga xam ne ñoom ñoo fa ñoom ñoo fa nekk